Crédit di malen nuyu bax di len siyaare sama gaya ak ni boy boy boy daru musina neuf détenus yi lañ génnee di len teru gaay yepp ngi fi ci buntu daru Muxti bi di len xaar waaw di xaar boy parce que boy yi umra ji won waaw dañoo umra ji won di xaar boy waaw gis nga gaay ak ni ñepp ñepp ngi ni taxaw honorable député Daba wañan mo ngi ni ñu ñepp xalé yi lañu xaar fi di len teru pendant 9 mois ci lañ len fenal ba tay ñu dëkk bi di len teru ñëpp a ngi taxaw waaw ñëpp saxir sama gars yi ñoom ñëpp a ngi nii taxaw di xaar booy yi ñoom ñëpp xale yu jigéen yeeg ñëpp a ñëw di xaar booy yi pour ñu teeru leen waaw fii doomi Daaru Muxti la ñu xaar neuf neuf détenus yi nekkoon ci prison de Rebeuss bi ñoom la xaar fii pour man leen a teeru gaa yaa ngi nii waaw amul leneen di xaar gars yi teeru leen dugal leen ci dëkk bi waaw parce que sàcc ñu dénkul leen alal réew mi ñu sàcc ko dénkuñu leen wen neuf milliards ñu sàcc ko ba pare di pelante waaw ñi war a dem kaso xam nañ leen ñi sàcc alalu réew mi ñoo ñoo war a dem kaso mais du booy yi gaa yaa ngi nii waaw gaa yi gaa yëpp booy booy lañu xaar ci bund bi instant bii nii quoi waaw boo yaa ngi nii ñuy xaar gars yi nekkoon ci prison bu rëbës bi pour ñu mën a pour ñu mën leen a accueillir yóbbu yóbbu leen ñoom ñëpp waaw. gars yaa ngi nii booy lañu xaar instant bii borom jakartaay danoo jàpp seen président dégg la waaw noonu la demee waaw ñëpp booy xaar neuf mois lañ leen fenal neuf mois lañ leen fenal gars yi lañu xaar waaw dugg leen gis nga ko tay vraiment waaw gaa yaa ngi nii ñëpp ngi nii di xaar ñëpp ngi nii di xaar waaw ah, gis nga ko touriste yi ñoo neex la dëgg dëgg dëgg dëgg lu nga wax terroriste terroriste lu gën a neex amul non terroriste yi mos a nekk terroriste waa daaru musi ñooy teeru seeni doom yi nga xamante si ni ndafa da leen a kidnappé woon fenal leen tëj leen 9 mois bàyyi leen ku ne moo leen libéré waxul dëgg président Ousmane Sonko ma nekk Cap Manuel moo leen libéré beneen politicien bu dëkk Darou Moussi wax ne yaa leen libéré da ngay fen waxoo benn dëgg parce que boo leen ma a libéré bu yàgg nga leen di libéré président Ousmane Sonko moo tax ñu bàyyi leen. waay keneen taxul ku wax ne yaa leen libéré da ngay fen leer Darou Moussi ngi nii génn di leen teeru mhm. parce que xam nañ ne ñooñu sàcc ñu. fenu nu mhm. tënku nu leen keesu réew mi ñu triané ko mhm. Mhm. violé wuñu bëgg seen réew lañ leen jàppee bëgg seen réew moom lañ leen jàppee mais le combat continue la fi nekkoon moo fi nekkaat fan tegoon suñu tànk foofu lañ ko teg te incha allahu rabi Sénégal dañ koy libéré par la force dañ jóge ci loxoy naaféq yi <laughs> jëlal ma combat bi sa waay ini wow, ada arus mu si génn nañoog doole di teeru seeni doom terroriste dëkk fi assassin dëkk fi gamer kufi. nit dëkk fi boy bu mhm. ay terroriste lañ xoola mhm. bu fekkoon ay terroriste lañ mi duñ di waaw fii ay responsable ñofi nek lu wer responsable ñom ñoo nek waaw. waaw ah, borom Cap Manuel mo leen may liberté premier lu leer xexu vendredi bi moo dëgër. ñii ñii bu doon ay terroriste ñi duñ leen ah, leer leer ñu ñu leer. billahi sàcc yaa ngi si biir de. beneen politicien bu dëkk Darou Moussi ne maa leen may LP ne leen ko da ngay fen mënoo libéré kenn. Mhm. yow nooy tëjee nit ki ba pare naan maa ko may LP. fii Sonko ma ca Cap Manuel moo leen du keneen. waaw leen xeex ak ndafa ba ko ci miir bi. waaw ñu koy bàyyi leen. amul leneen. wala terroriste terroriste ñii duñ leen waaw Benno Bokk Yaakaar. dërëw rësum. dama dara fan. dërëw rësum ñooy waa Benno Bokk Yaakaar bu keneen. waaw waaw tërëw yii terroriste de neex la nan yii terroriste neex la nan de yii terroriste neex la nan de. terroriste yi ni teer yoo xam ne ay 4-4 la leen di teeru mbooloo mi génn. waaw waaye sëñ bi yii terroriste ñoo neex la waaye yow. xoolal ma lii rek xoolal lii rek xoolal lii waaw. waaw waxal de. man ko waxal de. dama ne la ma la waxoon léegi rek. bépp politicien bu dëkk Darou Moussi. wax yaa leen libéré da ngay fen waxoo dëgg. waaw Sonko moo leen libéré. waaw waaw yow it la ñu enseigné nga